asalaamaaleykum mbokki safoo di seetaan Leral TV Leral point net ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal ñi si hôpitaux yi na yàlla seen bopp ba ñu dellu seen di ñaanal si prison yi aussi yal na leen fa yàlla suñu borom jëlee ba ñu dellu seen njaboot. ñi ngi jaalee képp koo xamante ne am nga ku génn àdduna ñi ngi koy ñaanal yàlla xare ko na te yéexeeñu yéen a ngi fii ci seen pencu aada ak cosaan comme ni ñu ko faral defee tous les dimanches à 15 h ma ci ànd ak tonton Ngari sama nijaay sama xarit di ci ànd aussi ak euh, Murit euh, ak maam Marème maam Marème dafa am empêchement moo tax ñëwul euh, ñu fas yéene waxtaanee tey thème bu am solo muy yara dal tonton Ngari nuyu naa la. waaw nee naa ñu ngi lay fay salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu bokki àdduna yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kilifa diine yi kilifa aada yi jiital ci sunu nuyoo nag kilifa diine yi. jiital ci Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou di xalifa général kullu murid yàlla fi yàgg lool tëwër ak njabootu Serigne Touba gépp di nuyu nag euh, Serigne Babacar Sy Mansour xalifa général kullu Tidiane ak njabootu kër Maam Alaaji Maalik yàlla fi yàlla yàggal boolu ko wér waaye di nuyu nag euh, sunu bàyyi Thierno Bachirou Tall muy xalifa général kër Cheikh Omar di ñaan yàlla mu yàggal ko fi ànd ko wér di ziar bu baax ah, Cheikh na Cheikh Sadbu bi nga xam ne tey mooy xalifa général kullu xaadiriya ah, yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu wér nuyu kër Cheikh Al Kabir Serigne Seer Mbay waaye nuyu nag suñ maa yu ñes bu ah, kër maa Ibrahima Ñas waa Laayeen waa Cenaba waaye nag du fàtte mukk waa jàngu bi te di leen nuyu di leen ziar Euh, ni nga ko waxee du di ci hôpital yi tëdd ci lali hôpitaux yàlla yàlla fokk seen bopp ñu am njaaxle ci yàlla ko yàlla saafara ñu ci prison yi yàlla ñu génn ku ne dellu sa kër ndaya maa ngi lay nuyu di nuyu murit ci xalam bi nuyu Babacar mi ne ci réalisation bi ànd kooko Matar Sakho ak mboolem koo xam ne nag kilifa ngi ci biir Leral TV ñi ci liggéey ñëpp ci suuf ba ca kaw nuyu na ñëpp di leen ziar Faaruqu Daarin aw Saara jërëjëf tonton Ngari tey ñu ngi fas ñu waxtaanee thème am solo muy yaradal lan mooy yaragal. Ah, jërëjëf Ndeya ci thème bu am solo bu ngeen indi yaragal Sénégal ñu ci ëpp dañu tuddee yaragal loo jur mu dee loolu la yaragal dogalu yàlla suñu borom la ñi ñëw fóon àddina dellu loolu du yaragal am na waykat bu ko way yaragal da ngay jur doom yu taxaw am doole am kàttan. waaye seen man-man du bari seen man-man du bari waaye kat man nag jur doom mu nu yàcc na yàccaaral amul lum la mën a fajal ndax juróom jur jur fukki doom yi góor kenn mun la ci jël mburum mburum kenn mun la cee fayal ndox wala courant te yooyu ñëpp yor kàttan ah dafa naa yara dal googu moom loolu mooy yara waaye may na Sénégal dañ ko tudd loo jur mu dee déedéet bokkul kon waykat bi andi woon na tekki bi mooy jur lu ñu dëng te mu tafaj benn soxla mu tafaj soxlay boppam boo xam la soxlay waajuram loolu mooy yar dal waa nee nga jur lu mënul faj euh, benn soxla mënul faj soxla waajuram loolu mooy hmm. yara dal te ñun bu njëkk ñun li ñuy dégg ci yara dal jigéen ñi lañ koy jiiñ dañuy jàpp ni jigéen boo sëy ci kër yàgg fa amul doom amul njaboot kooku mooy yara dal wala koo xamante ni jigéen boo xam ni bu juree lu mu jur ah. euh, lu mu jur du dund kooku loolu mooy yara dal mais est-ce que tonton Ngari doom bi nga xamante ni moo moo moo moo judd ba toll ni mu toll mënul mënulul dara ay waajuram est-ce que loolu doom boobu moo ko teg boppam wala yàlla suñ borom moo ko teg. waaw dafa am ñoo xam ne dañu am kattan waaye seen kattan liggéey taxu koo jóg caaxaan moo ko tax a jóg war nañoo mën a liggéey dara jot leen amuñu benn handicap yaafus. ak bañ coono tax na nag jéemuñu lijjanti dara kooku yara dal la jur doom mu kooku dañuy wax dafa bon le ci wolof yu njëkkee dafa bon le maanaam ku ñëw dem dafa bon le te ñaar dañ koy ñaanal ñaan yàlla taxawu ko ay ñaan ba yàlla bàyyil ko sax dañuy wax doo ñooy en général ñi mujj leen tudd ay sagar ak euh, yeneen tur leen leen tudd ci wolof dañuy wax ni dañ koy bu ko tuddee tur woo du dem waaye ku dul dem amul tur woo ko mën tuddee day dem moo tax foon àddina dellu dafa am ñoo xam boo leen dal wala du yara yaragal waaye euh, nga judd macha allah cër yëpp yàlla matale ko xel yàlla matale ko mais coono nga nanguwul ci sa yaram ba tax na nanguwoo fas ca xànc ak morom ja euh, sa yaay bu ci amee fukk yu mel noonu wax dëgg yàlla yonent bi yaradal weesuwul loolu coono rek lay dëkk nag. waaw yaradal weesuwul loolu coono lay dëkkee mais est-ce que man dama jàpp ni loolu noonu nga xamante ne njaboot gi ñoom ñu koy def ñi nga xamante ne am nañ doole war a mën a dem daani seen doole. ñëw jàppale seen waajur ñuy toog di xaar ku leen fa fekk est-ce que loolu tamit nekkul ci éducation bi nga foofu. du éducation xam nga waajur wu ne boo sañoon boo juree doom mu gën waajur wu ne boo sañoon boo juróon doom mu taxawu la boppam taxawu la taxaw boppam waajur wu ne parce que nag day Sénégal dañuy wax doom dañ koy euh, dañ koy forger pour mu jëriñ loolu la déedéet ku nekk boo sañoon tey même boo yore ay milliards sa doom ni la papa bàyyil ma yor dépense su kër gi. bàyyi ma fay ko courant bàyyi ma fay ndox kenn papa bàyyi ma def nangam loolu mbégte la doonte wala ëppee alal sa alalu doom daf lay gënal sa alal parfois mais ci bari ñoo xam ni lu ma wax ñëpp Sénégal da ko gis léegi ñoo xam ne toog benn place jàpp seen jàmbur jànguñu école jànguñu alxuraan jànguñu métier jànguñu àddina ba noppi ni réew mi doxul du dox mukk ci ñoom parce que fexewuñu liy doxal réew mi ba man caa jariñu kooku yara dal la xaw ma ku leen mën a jur lu ñu bari bari da nga yàlla baal yàlla dal na ci ay doomam parce que mënuñoo jariñ seen bopp bañ la jariñ kooku nag wax dëgg yàlla. Ah. bu ñu mënul ñu ni yaay jële est-ce que tamit du ñàkk am nga sa doole de partout a mën a dem daani sa doole ñëw toog benn place loolu est-ce que yàlla xam nga ñaari mbir la ci am. Ah, mën nga ko topp ñaari mbir mooy am ñoo xam bëgguñ seen doom mel ni mel noonu jéem nañ ci ñoom pexe yu ne gone ya bañ am ñoo xam ñoo ko liggéey ci seen biir néegu sëy li ñu bari di bañ ñoo wax dëgg la ku ku ku ku sóor sa jëkkër yekk say doom loolu moo xam nga tey moo jàppee sa jëkkër def ko puppe sa jëkkër laa sa borom kër laa wax de def ko puppe def ko sagaru tayu di ko fowe xam nga sagaru tayu sax am na njariñ ci tayukaay mais xam ñoo xam dañoo considéré wul seen jëkkër muy seen jëkkër xeeb nañ ko seen dara daay jëkkër doy leen maanaam daal dañ koo dañ koo ah, mbaalo ya daal ba bandone toroxal seen jëkkër mais kooku booy da nga jur doom ju existé taxaw ak dooleel tôt ou tard day na sax te loolu daa bari ci réew mi kenn du ko juumaale xëy na sax ñu ngi wax ay féministes yi bañ yu mel noonu mais réalité la boo xam ne fi dund. mais est-ce que tamit ci jigéen ñi rek la war loolu loolu jigéen gi rek la war wala jigéen bi ak góor gi tamit. waaw waaye ñaar ñoo ko waaw waaye jigéen lañu sant sëy góor dafa takk war a yor jigéen lañu sant sëy jigéen lañuy muur na ko sëy Sénégal moom toj na waaye muuragul benn góoru kaay sëy jigéen lañu muur na ko demal sëy te nga muñ te nga teg ciw yoon tànga tànga tànga ju baree bari parce que ñoom ñooy trésor yàlla sans borom ci ñoom la yàlla denc doom góor ëmbagul ci réew góor ëmbagul it France kon jigéen moom la yàlla teg natt boobu kon moom moo war a góorgóorlu ba ëllëg taxaw ni man kat kër gii ma jur naa fi jur ponkal moo xam bu waxee kenn ko benn ci kaw nag mu respecté loola mais bu fekkee da ngaa jël duy soo dem ni ñu koy waxee fa xëppante asibak euh, ñàkkante ci sa jëkkër ah, wax dëgg yàlla boo juree doom it lu mu fër fër fër dana mës a taxaw ay yaradal dana mës a ci moom. Ah, léegi nag tonton Ngaye léeg nga gis jigéen bu seen ba sonn de nekk ci kër fa defoon na ay doomam màgg te duñu tekki loolu tamit aussi léeg-léeg mu am de. dañ laa nëbb sëy boo xam nga sëy du ci biti am na ñoo xam ne folklore la ñuy def bu murit wàccee dañuy woon waa bépp ni maa ngi toppatoo murit ngattanu koog ndox mu sedd ni jaay ji ah wax waaye saa bu jant soo ñu dugg ci naqar lay tëdd ba bët nag góor rus naa gën di ko dal ci biir néegu seen waaye dana xam ne ëllëg su amee doom yaragal moom moo ko créé dana ko xam jëkkër dana ko xam ñoo xam ne nekk ci biir néegu seen duñ ko nettali boobu kooku nag yaa ko créé ëllëg nit ñi dañuy jaaxle waaw mais fii ak ni muy taxawoo jëkkëram bi ak ni mu ko toppatoo ak ak ak ak waaye doomam yi moom ñu lañ bëgg fekk ni moo liggéey lool moom xam na ko am na goom ñu sonn kan noonu la am na jigéen ñu sonn mais jigéen ñi sonn sa doom jëriñ sonn sa doom jëriñu loolu am na solo loolu kon sama mbokku jigéen ñi nañu nañu bàyyi loolu xel sëy metti na lool mais nag pour nga jur fa njaboot bu njaboot bu barkeel rek il faut nga muñ fa loo xamante ni comme ni ko tonton Ngaari waxee rek muñ bi nekkul li ngay togg ak li ngay def lépp sa biir kër muñ bi ci biir sa biir néeg la yow ak sa borom kër kon loolu am na solo nañ ci bàyyi xel bu baax tonton Ngaari lan mooy indi yara daal kuy indi mooy ah, sëy cib sëy te nanguwoo sëy sëy ba sëy cib sëy te nangoo sëy sëy ba xam nga bu jëkk daan may nit jabar mataar saaxu lañ may ndey kumba xamu ko nijaayam ak nijaay jee ñoo ko dox ba ñu kàcc ne korot ñu may ko ko comprendre nga baax na mais moom day ñëw parce que ci yaayam la purgé dem sëyi ndono yaay ji la jël yóbbaale ko ci këram gar fa bàmmeel ak lu kër ga metti metti comprendre baax ni moom kooku am na taxawaay bu mu taxaw mais su ne dañ maa forcé maye ma comme dañ maa force maye ma nag nu ma neex laa fay nekk kenn jëfugul la la neex am ca la la neex boo ñëwee nag ñu mayee la seen jaay war naa taxaw am fulla ni kat gannaaw bëggul bu leen ko ko may wala sa mag ju góor taxaw wax loola mais bu la bàyyi nga sëy sëy ba sëyu forgé nga xam lu ma neex laa fay nekke yara dal ngay jur am na ñoo xam sax dañoo muus léegi foofu day dem planning bañ fa am doom def la faas nag mu metti fu mu yem neex du fa jur kenn ba nga fase ko mu dem sëy ci ko ko neex kooku sax am na xel mais boo dangaa ñëw sa jëkkër bu la soxlaa mu jafe bu la yónnee nga bañ su la waxee nga tontu ko balaa wax nga fël gimiñ nga ah boo fa créé doom du taxaw di faj gàcce dana jafe de jafe de am na solo lool tonton Gallé li nga wax am na solo lool yaakaar naa ni thème bi ñu jël tey ñun ñun jigéen ñi ñun ñoo ci gën a gis suñu bopp parce lépp bu ñu waxee dañ naan jigéen la comme ñun ñooy yaay ñun ñooy yar ñun ñooy def lépp moo maa ngi leen gën a ñaax ngeen di teew teewlu émission bi parce que am na solo lool ñu ciy bàyyi xel ñu dem réseau jëli élément ñëw. maaleykum salaam sama doom. maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay. tur bi nan la. Binta Saw. waa maman Binta tey yaa ngi fii ci biir Leral TV ñu fas yéene waxtaane thème bu am solo euh, muy euh, yaradal lan nga ñu mën a wax ci yara dal yaradal maman Binta. maanaam yaradal daal li sama càmmiñ bi wax rek da ngay dem di sëy ci kër ay vingt cinq ans walla juróomi at doo am doom walla lenn nga am doom loo am mu dem loo am mu dem lool man de loolu laa xam ci yara dal waaw. nit ñi nag dañ naan kon maanaam di sama tonton bi wax rek nee na maanaam yara dal daal dangay ngay da am say doom jur leen duñ la amal benn njariñ mais man li ma daan dégg ci ay mag dañ daan wax yara dal mooy maanaam daal nga am doom loo am mu dem loo am mu dem waaw loolu daal laa xam ci yara dal man waaw dal kon ah, mën nañu jàpp ne dafa bari ay façon parce que suñu tonton ma ne na yaradal mooy nga jur doom te du la jëriñ dara wala du la mënal dara mais yow yow yaa ngi ne yara daal dafa nekk loo xamante ni ci ni nga ko xamee yow mooy jigéen bu sëy te amul doom mu ne lu mu jur lu mu jur mu dem lu mu jur mu dem loolu nan nan nan nan la ko jigéen war dundee am na jigéen ñoo xamante dañ naan dañoo yar jur mu dem loolu nan la jigéen mën a na war a mën a dundee loolu ci biir néegu sëyam ah loolu suñu borom rek moo koy def am na ñoo xam ne biir bu yàqu sax amuñu ko yàlla nag bu la tegee lenn li dang nga koy nangu xam ne biir yàlla moo demee noonu waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax yaay booy kàddu yi am na solo loolu ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf. ñu koy jaajëfal euh, sunu yaay jooju ñu génn di ci jaajëfal tonton Matar moom mi ñu jëlali woon éléments yi euh, tonton Ngari sunu yaay jooju dégg nga li mu wax. Hmm. moom nee na yara dal mooy jigéen buy sëy ci kër def fa ay euh, at yi bari te amul takkandeer wala lu mu jur lu mu jur du dund nee na moom loolu mooy yara dal léegi yow lan nga ñuy mën a wax ci loolu. waaw bu njëkk loolu ko daan wax am na ñoo xam lu mu jur mu dem loolu nee naa la bon mag mag ñi am xam-xam dañ naan wax dafa bon de finalement ay ñaan lañ koy defal def ci am yoo xam ni euh, li wolof maanaam Sénégal li bañ a dégg léegi daf ci am ñoo xam ni seen i maam wala seen i baay daan faj ay rab faj rab rab yooyu nga daan faj di ko dàq muy jën ci nit dañ daan fayu ci seeni doom ëmb boo ëmb dafay fexe ba andil la catastrophe ba mu boobu ne da lay tiital mbaa ñu deteel la wala yu mel noonu daana am ci ñi nga xam ne xam nañu mbóot mbóot daf ci daan am ba doom bi du taxaw léegi pour mu dañ il faut ñu def ay sarax faut ñu def ay ñaan yu mel noonu euh, ba tax léeg mu am benn doom ñu tudd ko sagar baa tudd ko bonle am na fan ñu ko doon tudd ñu ko daan sax tudd turum dëgg tur ay yeneen tur ñu ko daan wooye mais daal li wóor ba wóor mooy ki yore daal moom mooy ki jur doom te mënut a faj yi si yittey boppam waxuma laa sa yitte yow yow waajur yi te am na doole am na xel dara jotu ko dara tënku ko pour mu dem liggéey mais am na lu yàlla moolaale ci biir loo xam ni tax na dara du ko parce que rek nee naa la kenn du def lal la neex am ca la la neex jigéen ju ne xam nga sa njaboot laleen leen tënk waa baal leen tikki yow xam nga ko da gis doom joo xam ni judoowul ci sëy mais day barkel la lu mu laal mu barkeel da juddoowu ci sëy pourtant ñaare da gis jigéen du xale yooyu daanaka li ci ëpp ñooy dàq jàng ñooy njëkk a ci yu mel noonu mais soo xoolee histoire ba attention Sénégal la ñu dafa naqaree waxee puusuma ci kenn de mais soo xoolee histoire ba parfois da ngay xam ni war naa mën parce que ñaare ku ndey ja nangu la ñaare day jaral ñu dóor ko papam xas ko ay bokkam bàyyi ko mu ni man murit laa bëgg rey leen ma finalement fu ñu mujj am doom yoo xam ne bu duddul sëy doom yooyu ngay gis na mu taxaw nga gis ku nekk ci sëy comme ni ma la ko waxee sànq su jëkkëram wàccee mu lal lal yeeg du fekk n'importe quoi ci kanamu nit ñi mais ñu ci boor biig nag ci naqar la koy sës ba bët set doom nag mun te yàlla normal moo tax naa benn émission am na ñetti doom doomu kanamu lal doomu digg lal doomu jëlëg doomu jëlëj bu wutee du am su wutul du am doomu digleel su wutee am su wutul du am doomu kanam mu laal bu wutee dana am su dana am parce que nday jaa euh, am na solo loolu tonton li nga wax euh, waykat ba doon na ko wax ndongolo yàlla na ko yàlla xare àjjana oyofa suuf si kawam nee na jur mu ni léegi fajul dara jur jur mu ni léeng du du yara dal jur mu ni léeng te fajul dara loolu mooy yara dal mais nañ ci bàyyi xel bu baax ñun suñu mbokku jigéen ñi ndax Fatou mi ngi naan wurus ci diggu màndi euh, ndey ju liggéey du ko may ndey ju nangu moo koy may mm-hmm. kon ñun jigéen ñi nañ ci bàyyi xel bu baax ndax lii leçon la ñu xam ni yara dal nekkul la nga loo jur mu dellu dafay fekk yow jigéen bi nga nangu si sa biir néegu sëy loolu moo loolu mooy indi doom boo xamante ni dafay tekki ëllëg yor ay waajuram yara dal nekkul kon loo xamante da ngay jur mu dell nañ ci bàyyi xel bu baax ñu sunu mbokku jigéen yi waaw ku yàlla dal tonton Ngaari nan lañ koy xamee. noonu lañ koy xam mooy gis nan ab kutub xaj buy jar cinq cent mille kutub xaj bu jar téeméeri junni waaye kutub muus bu jar mille franc amul muus. daa ganaar gan lay bañ a gis ci kër bu ñëw ñu koy rendi waaw ganaar. 31 24 korité ganaar. kanaara bariwul gan di ñëw na nga rey kanaara gi bariwul dégg bi mm-hmm. parce que day daa nangu day jaa nangu xajit day jaa mm-hmm. muus balaa jot jabar ja sonn mm-hmm. loolu dana ko daj moo tax muus bu la toppee doomi muus danga koy dàq mais foo fekk ab kuti bu ñu bëgg a rey nga jël nga jël ko paar bay booy bàyyi leen xaj bi xaj doom la ñuy denc ci ruq gone yëpp ku añ tibbal ko après añ bi ñëpp indil ko añ kuti mu bari añ lool te dañ koy garder kenn du ko dóor parce que ndey jaanam kon jigéen nangu rek la war a def Sénégal nag neexut a waxee ndax politiciens yi kenn ko da ngaa bëgg jigéen ñi far ak ñoom moo tax nga leen di wax la leen neex waaye wax la leen neex wax leen lay dëggay dëgg parce que ci lañ mën a jariñoo jigéen barke la yàllaa ko mool def ko trésor di ci denc ay mbóotam ci këyitam nu mooy doom wàlliyo président yi ci jigéen kon li gën nga ne ko jaara yoon wu baax wi te baax le jur ay doom di yara dal yaa ko créé parce que yaa ko liggéey ci sa biir néegu sëy waaw tonton yi li nga wax dëgg la kon xam naa ni ñun jigéen ñi moom sonn nañu moom parce que loolu lépp ñun la ñun la ñun lañ ko wéeg ah, xam naa dañuy gën a dolli góorgóorlu rek hmm. yàlla baax na yàlla jàppale ñu ci parce que métti na torop doom nu mu mel rek dañ naan nday jëla doom lu mu mel rek dañ naan nday jëla te doom ndeyam mooy royukaayam kon euh, yal na ñuy yàlla gën a jàppale gën ñu taxaw ba ñu mën a mën a toog suñu sëy yi di fa mën a def lu baax di déglu aussi conseils yi parce que lii am na solo trop parce que jigéen ñu bëri xamuñu lan mooy yara dal ñu ngi jàpp ni jigéen buy jur muy dem la te fekk na du loolu mooy jigéen wax ma ne dafa nangu ci biir néegu sëyam jigéen boo xamante ni day def li ko war ci biir néegu sëyam teewul bu ko ci këram soxlaa du bañ lu jëkkëram bëgg da ciy dem ndax sëy bi sëy bi neexul ba neexul nag mais tax doongaay li mu wax dëgg la sëy bi sëy bi sëy bi yëpp ci biir bi la loolu dëgg la kon nañ ci bàyyi xel bu baax bien que nag metti na parce que sëyu Sénégal moo demee noonu mais nag nañu muñ rek ndax euh, ku muñ muñ boo muñee ëllëg dina neex ndax mm-hmm. euh, bu say doom euh, màggee tekki ëllëg rek lépp lu la metti woon sa biir néegu sëy rek yaakaar naa ni dina la neex ñu bàyyi ci xel bu baax ñun jigéen ñi Euh, tonton Ngare. Hmm. nan la ñuy moytoo yara daal. mooy sëy correctement ñi la ko yàlla sant wax naa la koy ñeenti yoon ci biir émission bi. Mhm. jigéen yàllaa ko teral ku nangu ak ku bañ lépp luñ bokkul neexul ku ko weddi wàccal liggéey bëgg a def omelette sa kër yow dong da ngay sonn mhm. ñoom ci cinq minutes ñu omelette la tegal la mhm. marta boobu ñoom la ko yàlla jox sa benn chemise koo fóot sonn ñoom ñu dajale chemise yu bari fóot ci benn temps paaseel la jox la nga sol jur président jur sëriñ jur wàllu jur xut bu samaan ñoom la Maamoor Anta Sili da nga ko dégg waaye bariwul soxna jaaratullaahi dañuy wax borom màggal ga moo dem kër si Maamoor Anta Sili ci 33 ans la am doog wuy ji borom bi bàyyee mbër mu toll na Sëriñ tuba keroog ba mu fay dugg daa jooy ñu ne ko jaaratullaahi lu xew mu ni bu woon li yàlla wax ci alxuraan ma jur fi ab yonent waaye yonent daa jeex waaye naa fi jël asamaan lu tiim lépp te dëgg la kooku sonal lu maam Mor Anta Sali fekk na fa Soxna Anta Njaay mbokkum taala anta maam maram kon nag jigéen lu ko war mooy sëy jigéenu Sénégal léegi ah, am na ci kuréel yoo xam ne yooyu ñoo leen yàq da ngay am moom problème ñu ñu la jëlal nañ la ko yoon nga tere na sa jëkkër justice di ko toroxal diggu tribunal am na ñoo xam ne man man ngaa suñ ñëwee ne ma diw mooy doomam réussir du ko du ma ko weddi dee parce que jaar-jaar ba xam naa ko muñ nu xiif muñ mar muñ rafle muñu dóor muñ saaga ba gone yee mag dara amatu gone yëpp tekki nañ loolu bu la ko waxee kii la da ngay lii la dëgg mais loolu tonton Gary muñ dóor muñ xas muñ saaga muñ xiif muñ mar loolu bu njëkk defe naa ne yomboon na ci sunu yaay mais yaakaar naa ñun sunu génération bi ñu nekk nii tonton ngaar yi muñ loolu du du yomb parce que jamono moo changé léegi jamono dafa metti ba pare tamit euh, sa soxna boo bëggee tamit euh, lépp li ko war mu koy def ci yow tamit da nga koy jàppale parce que nit bu amul wéeruwaay du dem boo amul foo wéeru tey boo tax da dangay daanu mais bu fekkente ne yow sa wéeruwaay dëgër na yaakaar naa ni kër ga nga nekk di nga fa mën a liggéey loo xamante ni ëllëg di nga def naa fi lu baax bien que nag ñun ñoo war di di di def lu baax di góorgóorlu mais tamit il faut tamit góor ñi aussi di leen jàppale tamit. jigéen ji mu koy jàppale benn wéeruwaay am mu yàlla koo wéeru day dee ku dee mu dajarul bi nit. mais ci sëy bu dee ci sëy wéeru waaye parce que sa borom kër moo ne moo moo nekk sa moo nekk sa wéeru ci borom bët bu rëy mooy maanaam koo xamante dina la jàppale boo jaaxlee gis ko xam nga tamit boo dee nañu benn loxo rek du tàccu benn lam aussi du yëngu ñaari loxo mooy tàccu mooy comme foofu laa la bëgg a wax rek kooku mun laa jàppale xam nga dafa am koo xam matul da bay wut ko ko mottali mm-hmm. mun laa jàppale waa léegi lan moo tax yéen lépp ngeen sës koo jigéen ko sa jikkooy yaay moo lay jàppale ci sa biir néegu sëy am ñoo xam seen yaay leen wax amal fulla ci sa kanamu jëkkër man sa baay musumaa yem kooku toroxal na doom jë sa baay fii la ma sa yem dadaa da su ma ko waxee réglé mu réglé du ñëpp ñu réglé am na kër goo xam boo demee bëgg a réglé nit ñi ñu delloo la ci sa kër bàyyi nga toog yaay janaan doom doxal muñ li ma daj dajagoo ko dëgg la surtout conseil yi am na ci solo ndax nee nañu doom ja tey ja mu bañ rek sa yaay moo baaxul am na ñoo xam ne bu ñuy wut soxna dañ ñaan leen dem leen ci kër di wut ndax gis nañu yaayam ni mu sëyee rafet na baax na jikkoom doy nañu parce que mag yi lu ñu wax rek euh, dëgg la lu am la hmm. dañuy seetlu dañuy xool dañuy gis léegi ji koo xamante ni jikko yaayam doy na la rek euh, yaakaar naa ni boo ko takkee bu jëlee ci euh, jikko yaayam yooyu bu ci royee rek bu fay sëy yaakaar naa ni yàlla suñu borom dina ko fa jàppale bul takk ndaw si takkal yaay ja jigéen kenn du ko takk yaayam ngay takk boo ko waxee ko xamul nag day jàpp ko lañ bëtal yaay ji ba xam ban jikko la yor Sénégal boo ne damay doxaane ndeyaa ñu ni eh dañ koy dox xëy maye goo gis xëy wàcc koo koy moo cay tegu compréhensive amu fa mais boo doxee ci kër xool yaay ja dikk di seet ndeyaa toog dégg yaay ji naan ay ba may jànq maa ko dàqoon fuuf góor gu ma sa ñëw rek na sama kanam ba ci bàyyam bii boo dee nit boo demee bu jël si boo koy takk ñu lay ceene waaye boo ñëwee may nopp yaayam mu ne cëy li ma daj xiif naa guddi xiif bëccëg rafle xew daana am sax mënumaa dem ndax ñàkk yëre yu ma sol jëlal doom ji lu mu bitir ñu ko bitir ñu del ci di ko yaayam par force mbaa bu yàggee ci kër nga xam ki ko jur ku mu doon waaye koo fekk ba papaam yebu ma boo ko takkee mu yeb la lankal bul tànk guy nag dina juri dégg leneen day mel neneen doom di gën ko ah kay loolu parce que keneen mën na ko mbaa mu roy jikko yi keneen mais li wóor boo wóor daal jigéen mën naa sobe doomam waaye mën naa labal doomam nee nañu jigéen mel na melokaan ba lambale doomam waaye jigéen mel na melokaan ba jaay ay doomam loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Sénégal nag euh, ba ay nuyu ko waxee ndax politique bi ñu bëgg a falu ñëpp jigéen ñi lañuy faral fi ne bu émission bi day ñu non sa waay dañu soob rek waaye jigéen nangam nangam bu ko defee aj leen pour jariñoo leen ci élection yi ak kuy def sa manifestation du leen ci kaar yóbbu leen waaye ay sëy sëy boo nangu rek ab sàcc boo jàpp mu na non sama yaay laa bëgg a dimbali. mbër buy bëgg a bëri samay yaay dafa sonn ci man keneen koo la sama yaay waa sama yaay jooju du caaxaan kon am na lu sax déggoo ko gën sama papa daa sonn sama yaay rek lañ kon yaay dafa am doole ak mandarga ci këram ak dooleem na fexe fexe ba jur doom yoo xam ni dañ naan lëng ba noppi am njariñ bañ a jur ku ñu lëng te amul njariñ wax dëgg yàlla yoon ci loolu am na solo loolu na nañ ci yàlla jàppale rek. amiin yaakaar naa ni jigéen buy sëy bu nekk totongaari ci biir néegu sëyam bu sañoon. dafay jur euh, doom yoo xamante ni bu ñu màgg dañ naan doomu diw la wala fu ñu taxawee wax leen ñu ni ñu ni déglu wala nangam. loolu nag yaakaar naa ni yàlla suñu borom de moo ciy jàppale ak comme li nga wax parce que yaay li nga naan góor dana jur xatar mën na baax doom juddu. Mm. jël su fekkee wala safaan la. yaay aussi mën na bon mel nu ko neex sa euh, doom doom da ñëw baax neen wàllu doon lépp moo tax man dama jàpp ni rek. lépp rek ci numéro yàlla la man ci loolu laa ko jàpp euh, tonton Gare ñu dem régie jëli waa sunu beneen élément ñu. waaw alayhi salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. delloo na leen nuyoo beeg la. man la suñu Ibrahima Dieng lañ may wax. sëñ Ibrahima Diène te yaa ngi fii ci biir Leral TV mhm. seen émission aada cosaan ñu fas yéene waxtaanee thème bu am solo muy yara dal lan nga ñu mën a wax ci yaradal. waa yaradal de maanaam wala fa koy wax mhm. maanaam yaradal nag ay façon la yara dal mag ñi dañ koy wax ni jigéen juy sëy te amul doom waaye dëgg-dëgg yara dal du loolu yara dal mooy nga jur doom mu day ni nga day man li nga man te mun laa fajal dara loolu mooy la waaw baatu dëgg-dëgg walla fu yara dal loolu lay tekki waaye nag ñun fii en général ñun yara dal dañ koy jàppe ni jigéen joo xam day sëy ci biir kër di am doom doom da di wàññeeku waaye or ko du loolu yaradal dëgg-dëgg maanaam ba baatinu yaradal daal ni la ko mën a tekkile mooy nga jur doom mu ni léng day na yow te maanaam jëru mënu laa guddil mënu laa bëccëgal loola moo nga bañ ko am sax moo gën moo tax wala fi naan la jur naa la ba nga day na ni ma day te mënoo def mënoo ci man mënoo maa defal dara maanaam loolu moo ko yaradal ñooyam nit nag day jaboot ba am njaboot ba pare te xale yooyu kenn du ko ci jariñ dara nga gis kenn koo xam ne am benn doom doom ci jariñ ko man ko mënal ko guddil koo di ko bëccëgal waaye li ma la mën a tënkal daal ci baatu yara dal mooy nga am doom wala nga am ay doom te muñu laa fañ te téew sa coono ba nga amoon ba léegi nga continuer di dund ci coono boobu loolu nag suñu borom moo koy def ci doomu aadama yi ndax yàlla mooy bind doomu aadama te yemalewu leen ñii dana leen bind bu ñu seeni doom bu ñu bu ñu bala ñoo sonn seen doom aw leen ñii nag danañ dund yor seeni njaboot di nekk ñoom di yor kër di yor kër ba sàngo suuf moo leen tee euh, bañ a yor kër waaye dana am doom parce que doom yi leen jariñ dara waaye dana am jur doom doom ji maanaam mandi rek lay liggéeyee wala maanaam du liggéey wala amul dara loo xam si lu mën a yore kër gi la loolu daal ci tënk daal ci nga xam si loolu laa la mën a wax baatub yaram daal daal ñun noonu lañ koy tekkee waaw kon nag maa lay nuyu di la sargal ah, di mm, seen émission bi yàlla na ci yàlla def barke ndax yéen a ngi def lu am solo baax na yàlla yàlla barke lépp ba seen rajo bi dem ba leen ay télévision bi jaay si naa Mohamed baax na jërëjëf. ñu ngi koy jaajëfal sunu papa jooju di ko gërëm bu baax ci disponibilité am heure bu ñu ñëwee mu yombalal ñu liggéey bi di ci gërëm aussi tonton Matar moom muy demoon di jële éléments yi tonton Ngari sunu papa boobu dégg nga li mu wax lan nga ci lan mën a wax yow. waaw mooy li wax ci ndorte gi rek euh, loolu moom wolof yëpp ñi nga xam ni baat bi soxal na leen ba ñu xam ko loolu la jariñ jur mu del du yara dal parce que loolu moom euh, maa ngi dañ kaan wax ba dafa ëmb bu mu ëmb mu tuuru wala doom di gane àdduna dellu yàlla ko yàlla may ko toog daana am daa am benn doom it mu am njariñ la mu am njariñu fukki doom mais da am fukki doom duñu am benn njariñu kër mën nañu bañ a màndi sax waaye dañul jéemuñu dara daal te dafa bari ci jamono bi jéemuñu dara benn place yi toog jàppoo réew mi neexul réew mi du mën a neex te jëfoo dara kon ah, jigéen daal moo koy sabablu ci kër yàlla binduñu ci am xel ngir ñu yaafus yàlla bëggul ko yaafus moo tax ñaari yox sax même booy dem màkk na fekk nga am kattan sooy jaamu yàlla dëgg-dëgg na nga ko jaamoo ci jamono bi nga amee kattan mais doo nekk ba am 65 ans 70 ans naan nag xaaral ma commencé jaamu yàlla yàlla bëggul loolu ci sa doole la ko bëggee kon nag faawu jigéen ñi sabablu loolu euh, gëm ci si ñi sëy lu dul sëy sëy ko gën parce que sëy du santaane nit santaane yàlla la yàlla nag comme da sëy dafa bokk ci jaamu yàlla da nga ko war a bëral ni ngay jullee ni ngay woore ni nga ñetti asaka ni nga joxee murum koor noonu laa war a sëy teg ko ci yàlla xa ngërëmal sa borom du ma métti sama jëkkër danaa naxanteeg moom parce que nag man maa war a am doom man na sama doom war a siggil parce que dañuy gis que même ci xew yi dañuy wax eh, njaag xamuñ koy waxee sax njaag euh, ah njaag nangu njaag bàyyi ba bokku ca yaay ji la ñuy xaalis moom la ñuy wàññal tuus si moom la ñuy moom la ñuy moom la même màkk bu jotee yaay moo njëkk a dem ku tabax kër bu noppi yaay nga fa njëkk a ajouté dama damaa bëggoon yóbbu sama yaay ci kër ga mu wéttali soxna ya papa demul de kon il faut jigéen ñi indiwaat loolu ci seen bopp xam ni marta ba mi leen yàlla may ak daraja may ku góor cër bi leen sama borom jox jox ku góor bañ na ko ba ni su jigéen nekkee ci néeg bi njaaloo kii sëy nekk ci néeg di njaaloo ngir moo am confirmation total fokk ñeenti nit jóge ci ñeenti xibla yi te yëgoowul daje ci biir néeg fu daje ci néeg bi fokk ñu gis ni njaalo bi am na waaye dataaj teg mais su boobaa maandu leen yow jëkkër ji soo mën a téye ko soo mënul bàyyi ko waaye noppi ndax keneen ku bëgg xoolal loolu loolu rek war na tax jigéen ñi góorgóorlu am de biir boo wooree ba ngoon naan ndox mu ëpp da am problème yàlla def ci nit neuf mois ngay nelaw di yeewu di doxi di sangu di waxtaan dérangé wu la ba bis ñëw mat ñëw yàlla teel la ruu gi génn nit kooku tegal ci sa kanam mu jur tiim la donc kon war nga bala ngay indi kooka war ngaa def lu baax ba kooka bu mu ñëwee wala mën a def dara da am doom yu ndaw yu tuuti am ku ci am sa yërmande su amee mburu sa bala ko lekk daggal la papa am wala yaay daggal la kooku am na yéen maanaam cew kooku yara de kooku bu seet la ko buy màgg yow la njëkk dimbali am na doom yoo xam lu ñu am woon la gannaaw buñ soxlaa la ñuy ñëw yara dala ngi door nan positive ci sëy yi gérer la situation yërëm jigéen ñi rek teg ci ak di leen dimbali te ñoom it ñu war a bañ a a dëgër bopp ak wala ni laa toll man que loolu lu ci góor ñi tamit xam am na jigéen ñoo xamante ni li nga wax ni yëpp xamuñu ko xamuñu ni ñoom li ñuy def nii pour seen njaboot ëllëg dañuy jàpp ne li ñuy def nii maanaam bu leen seen borom nga defee wala seen goro def leen wala seen jëkk a def leen dañoo war a taxaw pour defante ak ñoom am na ñoo xamante ni li ñuy wax nii nii njariñ bi ci am am na jigéen ñoo xamante ni ñu ngi nekk seen biir néegu sëy te xamuñu loolu xam nga dafa am góoru sëq baaxul sëq day def jom ma ñaaw di gongeet gongeet lu mu yor noose ko ayeer bàyyi këram jees ñaar mu jël costume mu costume lu rafet mu sol bàyyi jabar mu sol waal bu soloo ba génn nga yaakaar ni fii ma nga jëm audience su Macky su jabar gi génn nga yaakaar dafay day bale gi baaxul xañ sa kër dundal sa bopp góor bu koy def baaxul bu dee jàpp ñu yara na ca boole yow gannaaw yaa nangoo samp kër yooyu jabar ki doom bàyyil sa bopp te téye kër ngir payug yàlla sa borom bul njiigoo ak sa jabar ne ko da xam ne maa ngi wayam bul koy amoo fulla ni ko magee ba takk ko dimbale ko ci yërmande waaye moom it bu mu dëgër bopp wala sa kër gi baax doom ji bu màggee ngeen fekk ko yéen ñëpp ngeen jariñoo ko. waaw mooy li ma wax rek xam nga sëy bi ñaar la nekkul yaay bi kese. te yéen da ngeen di jël lépp bu ñu naan yaay yaay bi yaay mooy li ma la wax tamit aussi tonton Gaye ci la bokk parce que xam nga ñun du ko wax ci sàkk jaam ñooy ko wax yàlla subhanahu wa taala wax yàlla nag dafa neexut daa sàkk aadama jël awa tegal ko am de aadama la jëkk bind jël xaawa tegal ko kon xaawa kilifa aadama kilifa awa du ci yàlla moo ko def ba noppi nag ni sooy ñaan nañ la may ndaw si yow demal ci kër Matar Sakho nga sëyi fo jaamu fa man yàlla wax loolu de nit waxu ko du Macky Sall du Abdoulaye Wade Ousmane Sonko yàlla waaw ah, Sénégal ñoo ñoo fi doxal léegi am de yàllaa ko wax de ñun waxuñu ko amul benn code de la famille bu bu nu créé fii ci ab sëy ñu ñoo ko créé déedéet yàlla moo ko wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxna Khadija moo mag ci yonent bi ëpp ko alal yàlla jël ko nangu na sëy ba yàlla da ko da ko accepté defaat ko muy jànq mu dégg ko Moustapha waaye Moustapha ak Moustapha de musu ko ne ëpp maa la ëpp alal yem ma fii déedéet moo tax mu jur Faati Bintu jur ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci kër ga pourtant yonent bi kennam kennam wutuwu ko tey doomam parce que pouvoir boobu pouvoiru yàlla la kenn du ko wutu ku dul saa bayee toppoon ci moom gis nga yàlla ni mu def distingue ni mu ni mu def distingue wax naa la ko sànq ci soxna bu Buso wax naa la ko ci maam Faabaat di wele ñooñu ñëwuñu woon pour woon ne ñu dañuy concurrence dañoo ñëw ni ñoom dañuy seey si jaamu yàlla ci kër gi jur koo xam day taxaw di wax kenn du ko di exemple yaa ngi noonu góor wuti rek la war a def gérer kër am de jigéen mooy neexal kër yow sa jëkkër lu baax baax baax baax lu mu yaatu yaatu soo xatee kër gi xat waaye sa jëkkër bu siisee soxor bon lépp dal ko boo yaatoo kër gi neex kon jigéen kër kër luñ ko tabax bu rafet rafet li ñu njëkk laaj mooy est-ce que waa ku jabar waa yi ñu jabar ñu eh kii de baw waaye di way jabar ñu ne am na sens de nga ndax léegi loolu dina yomb suñu jamono ji ngi toll nii parce que léegi jigéen day jóg ku bëgg a sëy sax bëgg fa jur njaboot di baax mais duñ ko ci bàyyi soit dina am wujj boo xamante ni wujj boobu moom wala mu am goro boo xamante ni dafa naqadi dekkal dafa naqadi dekkal wala mu am njëkkee bu ñëw di ko sonal di ko xatal xam nga léegi sëy Sénégal dafa metti léegi si sëy fi jur fi jur fi doom bu baax doom bu tekki jafe na loolu xam nga bu ñu tënkoo ci Sénégal bu njëkk ga dañuy réer Sénégal dafa bu yàggul dara ba ci deux mille vingt deux mille sonu xaymaa ay sept millions huit millions tey ñu ci vingt millions nangam habitant waaye ndox daan taa ba tey ba dem fekk fa tepp tepp boo fekkul tepp tepp xam ne fii ndox daan fi taa ku ko weddi jëndal kër gu daan taa ndox buy nawet ngay génn parce que ndox maay jël place ñu doon baax ba tey ñu ngi baax dafa am yoo xam dafa wala ca maam ja jorogaat du dañ mukk saay foo takkee jabar kër diw eh am nga jabar ñooñu laay la séeréer yi def te pourtant maam ja na ca deeyu njëkk yow foo takkee kër diw ah baax na lu xew dara dara dara xewul parce que xam nan du yàgg am na ñoo xam ni bu ñuy sëy bul tëj seen néeg delloo ko rek toogu taar retour day am par force waaw am na xam bu ñëwee nag seen yaay laaj leen lu leen di ñu sëngeen parce que seen yaay sëyewu ni ñoom ñoo yor jikko am na goro yoo xam ni kuñ takkul bugguñu ko njëkk yoo xam ni tes seen xëy ñëw di tes kër gi kooku borom kër gaa ko nangu doo tes sa sëy ñëw tes sama kër doo ma ko nangu balaa ñaa nga dellu sama kër bàyyi toog fa doo toog sama kër da ngay am fulla ci loolu waaye gis nga ki jël décision sëy goro booboo nag goro ba baax ak njëkkalu pànk ak njëkkalu yoloma ci am damay sëy si man danaa gérer sama sëy ba bëgg am danaa ko am am na. buñ la bàyyiwul pour nga gérer ko la de. ah kay yow ta place pour topp seen gannaaw. doo topp seen gannaaw ndax di nga sëy si sëy dafa am foo xam ne bu mën nañoo coowoo ndoy bu fa sëy tolloo ñaar ñaar ñay sëy de. Ah, bu duggee ci néeg ba buntu tëju ñee ñooy sëy yow loo doon wax day yem ci pind ba. ca buntu néeg ba ca ëtt ba sa wax ju rëy wax ju xumb ak saaga foofu la yem kenn faalewu la nag souvent ci rek ci kàttu bu yàlla léegi nag la ngay am ci doom ju baax foofu nga koy créer yaa xam say feem ak say business moom yaa ko xam foofu am na ñoo xam ne bu ñibbi ñu jëli leen bu ne fay ñu leen di jëli balaa jëkk jaa dem sax waa kër gi jëli leen ndax mën na noo togg seen tontu neex na seen póot set na seen paase tàlli na tey nag yaatu na kooku bu demee ñu jëli ko am ñoo xam bu ñu kenn duñ jëli ndokk la ñuy wax ndax ñu am jàmm kooku baaxul jigéen daal na góor gi doom nag damay dégg wala fi naan contrat sëy doom bokku ci du doy ah, ku sañoon am ko neel kay yàlla joxuma ko waa bi doom bokk ci mooy mooy bi ngay takk yow jigéen bi rek nga ñëw takk mais takkaale woo ak doom doom bu ci doom ngay takkaale de doom ngay ah, takk koo xamante ni yow yow kii eh, am na ñoo xam ne yàlla da leen bindee toxtongaay du ñu am doom du ñëpp mën a am doom bu yàlla dugg rek wax feneen ku laay waaw mooy li ma la wax rek xam nga bu ko bañ ay da ngaa na nga koy waxee sax da ngaa jaasi mën nga takk koo xamante ni am na nit mën na sëy koo xamante ni ki mu takk leer moom du xam ne kooku du am doom te moom du ci xam du ci xam dara day ñëw takk ko mais ci biir sëy bi dañuy dund te kooku du am doom hmm. loolu day am. loolu xam-xam indiwu ko. kii ñu bëgg a takk du am doom kooku xam-xam indiwu ko. ama boo demoon di takk soxna tey doo xool ni ba xam doo ko xoolal ndax mën na am doom wala mënu am doom yow da ngay rek. di ñaan yàlla may la ci njaboot kon moo tax liñ sëy liñ ñaan sëy doom doom bokku ci wax nañu dëgg bénéfice la man de man de loolu laa jàpp man de. man de jàpp ma ko ndax sëy moom bu doon kese ñaari nit rek jarul sonn kër murit bu tukkee ñëw tabax étage wax dëgg yàlla jabaram dong dong ca kër ga ko dong taxul. waaw bu yàlla ne jabar ju am doom nag. nga sante ko yàlla xam ni moo ma bu ko li ma la wax rek. waaye da ngay dégg naa non du contra amul sëy contrat sëy bi contrat bi doom bokku ci boobu sëy du yàgg sëy du contrat. embauchement d'office la. Ah, waaw xam nga tonton Ngaye sëyu contrat mooy sëy boo xamante ne dafa am at soit kii sëy yi préparé na xam na ne xam na ñaata at la fay def ak ñaata durée la fay def kon kooku dafa sëy ngir ngir intérêt wala mu sëy ngir leneen loolu am na leneen lu ci tegu mais bu fekkente ni kii dafa sëy rek te yàlla tax kooku doom bokku ci bañ koy dakk takkaale doom doom bu ci ñëwee bénéfice lay doon bu ci amul tamit dañuy xam ni yàlla suñu borom moo ko ci tudd eh, loolu na ko war a fi defaraat waaye Sénégal lañ defaraat googu kàddu baaxul ah sëy moom ñëpp doom lañ ci séentu waaye bu fekkee amu ci nañ ko sant yàlla waaw mooy li ma kon bokk ci ci la bokk ndax bi ngay takk jabar da ngay kat séntu bu ma ko takkee xëy na yàlla mën na dem ma taawloo ci góor mbaa taawloo ci jigéen moom it ma naan xëy na bu ma seeyee ak Babacar mën naa maam ca góor wala jigéen. parce que xëy na ba ca daw du du la wax mais da koo bëgg mais borom bi dogal na ni yow kat waroo seey ki am fi doom ngeen dem 10 ans 15 ans doom amul waxkat yi wax yi ak yi ngay xam ne xamuñu yàlla sans borom tuumaal la. sëy bi tas mu dem sëy murit am fay seex dolli cay seex ñu ne waaw woom waa ji nga xas ndaw si moom am na fee ay doom fee la ko yàlla dogal dogalu ko fii waaw xam nga loolu loolu lépp ko yàlla dogal dogalu ko fii mais loolu mën na nekk ci ku jigéen ki te tamit mën na nekk ci ku góor ki en général nit day sëy ci ci ci sëy ci kër yàgg fa du fa jur doom du fa jur dara lépp ku jigéen ki lañ koy teg te fekk na ku jigéen ki mu ñaanal loo xamante ni bu ko waxee àddina te lu cëpp ci ku góor ki lay doon wax naa la ko ci biir wax ba taay wax naa la ci biir wax ni la mm. soo dajee ku xamul yàlla gëmul yëngul yàlla sans borom loolu indi la mais boo dajee gaay yàlla ya dañ lay gëmloo yàlla moo dogal lii est-ce que bari bari mais bépp sëy bu ñu teg bopp ñaar ña war a sëy ca xalaat yi mooy taaw bu góor ak bu jigéen wala bu jigéen ku mën doon am na ñoo xam ne nag soo amee doom ñoo xootoo leen parce que bëgguñu ko ci woon am na góor ñoo xam bëgguñu ko soo nee dama ëmb rek découragé nga leen kooku nag sëy taxu koo jug kooku bànneexu ko tax a fu muy bànneexoo ak ku muy bànneexoonteel kooku la wut moom su doom ñëwee rek sëy ba yàqu na am ñoo xam bu doom ñëwul commencé nañoo kaas ñoom parce que doom la ñu bëgg yàlla nag moo ci dogal doom am ñoo xam ni dañuy am doom dem ba fa doom ji day day juddu ñu seen yaay faatu doom des fa kii sa doom judd papa ji faat doom ji des fa loolu lépp dogalu yàlla sa borom la nañ jël lépp delloo ko yàlla lu mu def ci sëy bi rek nangu nañ ko wax ci gàtt. waaw nañ jël lépp delloo ko yàlla. loolu moom mën naa ko ndax euh, sëy doom doom doom doom bu ci amee rek bénéfice la. du bénéfice de bàyyi loolu ndeyaa. du bénéfice lan la. bénéfice amul ci jaamu yàlla. ah mais bénéfice mooy maanaam yow. yow am am li nga bëggoon am nga ko yàlla dolli na ci leneen loolu bénéfice la. xam nga bu ñu bëggee doon ñun ñëpp ay bénéfice bu baax. non bénéfice mooy maanaam loo xamante xam nga xam nga doom nee nañ doom kado la. doom la parce que am xamante ni amuñ di dund dund nañ ba dee te amuñu doom. Oh, oh. mais doom am na ñoo xam ne ñuy toog ay ati at du ñu am doom xëy suba yàlla may leen ñu ëmb am doom mais doom boobu duñ ko gëmee. mais ñun parce la ci ñoom. mais ñun lan la ñu kon. mais ñun ay doom lañ ay nit lañ. kado noonu. waaw ñeneen ñi ay kado la. suñuy moo ngi juum moo ngi juum Sénégal ah doy bu toogee doom daal kado la doom bénéfice la ah pour man. dañ lay wax yàlla yamal xiyam dana la laaj kenn ku ne la nga doon sàmm lu doon yàlla comme jox doom am na lu tax bu la joxee doom am na lu tax. parce que yamal xiyaam dan la maa la joxoon diw ak diw de lu tax jéemoo ci ñoom ñu baax lu tax jéemoo ci ñoom ñu jaamu ndax jéemoo xam ñu xam ma problème la de yàlla nu yàlla may doom te may nu kattan gun leen jaarale ci yoonu yàlla bëgg amiin am na ñaan ngaa noonu euh, tonton Ngari ñu bàyyi la joxe solution yi solution yi de yomb na mooy yara dal daal mooy jur doom te mënut a jëriñ boppam mun laa jëriñ xam nga nag ki am handicap waxuñu ko te handicapé yi sax ñu ngi yor seeni kër baa ngi dimbali seen waajur am na koo xam bu yalwaane ba ngoon dolli dépense su kër gi am na koo xam ne bu yalwaane ba ngoon jéem a fay courant kër gi kooka handicap laa muy góorgóorlu de am koo xam ne amul benn handicap waaye liggéey ci boppam moo ko ñorul moom kooku yara daw la ba noppi am na ci ñi yara yoo xam ne dañu bëgg jabar sam nga lool papa takkal ma jabar ci ponkal yow ku munta lijjanti genn wàllu bi sumbul papam takkal ko jabar yaa ko ñun problème yaa ñun ndaw sa problème kon jigéen ñi ñuy sëy te yàlla tax xam lu dul sëy sëy ko gën taar day jeex jekk day jeex diriyànkee day jeex bari alal day jeex wax naa la ko sànq Xadijatu mu Seydina Muhammad cag maasa moo ci ëppoon alal bu doon jamono bii moo doon multimilliardaire mais teewu dafa jël nabi Moustapha def ko muy sangam bàyyi koog alalam ak léppam féete ak moom kon nag soxna jaaratullaahi di xa di di misaal maa faa war di wese wele di misaal ak ñeneen ñu mel na ñoom kon ñun sëy taar na jeex sëy rek te yàlla tax góor ñët bañ di dóor dóor lex boo war a fóon bu ca pes waay bu ca pes jigéen matadina tey tooñ tey laaj góor mat nag laaj de ko jox tey baale waaye nag nañ comportement yi nañ ko defaraat ba mu gën a baax koo yar dee ko dimbali waaye da xam ne maa yow góor du ko wax de yaa ko mat loolu solution yi sëy te yàlla tax. waaw ah, loolu mooy solution yi te sëy yàlla tax. murid li ngay xalam neex na trop macha allah yàlla yàlla wéral loxo bi tonton Ngaye li nga wax am na solo ñun nañ ci gën a bàyyi xel ñu jigéen ñi ñuy sëy te yàlla tax ndax euh, am na góor ñoo xamante ne dañuy defante ak seen jabar yaakaar naa munu dañuy jël lépp teg ko da parce que buñ leen toppee rek euh, duñ duñu duñu am li ñu bëgg suñu sëy waaw léegi yàlla ñu yàlla defal loo xamante ni day kawe suñu njoot dañ ñaan bëri le moo ko gën yàlla na yàlla barkeel barkeel leen ñëpp seen njaboot Euh, ñuy ñaan lépp loo xamante ne wax nañ ko fi rek euh, yàlla na nekk loo xamante ne li jëriñ la ñun ñëpp surtout ñun jigéen ñi seetaan ndax thème bi ñun lañ ci gën a laal ñun ñoo ko war a bàyyi xel bu baax tonton Ngari ñoo ñu ngi nga tàggatoo. santaat yàlla sa borom ci kattan bi ñu may donc manu fekkee tal man di gërëm askanu àdduna bépp di ñaax góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk xam ab takku. ci jaamu yàlla àdduna jeex na ku nangoo ko bañ fi des néew na nan fexe ba jaamu ci yàlla sans borom yàlla na nu nangul ñaan di encourager la jeunesse sénégalaise di leen wax nañu liggéey keroog gis naa ci benn ci Facebook bi benn waay xam naa ni ba amee trente ans trente quatre ans ci lay toll mu ni seen waa kër barki démb sóoru ñu añ amuñu ceeb bu ñu sóor añ Macky Sall tooñ na ko lool du Macky Sall ndax Macky Sall moom sóor na ponkal moom 34 ans mënoo lijjanti kilo ceeb bu seen waa kër soo yara dal na koo ko yara boo demoon puus ay birig sax da nga fa am 3000 yi ngay jëndee ceeb ñu day doole dañ koy liggéey jaamu ci yàlla kon politique bi baax na waaye ni ko defee ñaaw na kon damay joxewaat message rek nii man def ndànk yàlla noppi na kii faru deux mille deux mille yàlla xam na ko ku dul yàlla xamoo ko mbaa ñam ko xamal luñ ko wax Facebook beeg coow li ma bari na waaye ki yàlla dee dëgg-dëgg du génn ci Facebook di wax nan tey ci jaamu yàlla kon nag ah, ma gërëm baax nag sunu ndey Aminata Mbengue Ndiaye xaar yi maa ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla dolli gudd fan dolli ko wér yàlla sàmmal na ko bàyyi ko sunu kanam ndey ju bañ ay doomam jooy lañu jaaxle. fu nu jaaxle taxaw mu taxaw suñu wet dimbali nu kon ñu ngi ñaan yàlla mi am kattan yàlla na ko yàlla dolli wér ba mu kattanu taxaw seetaanu ñun ay doomam ñun nous les kon ñu ngi koy jàppale bu baax di ko ñaan yàlla sa borom mu taxaw ko eh, taxawu képp koo xam ne rek yaa ngi ci réew mi eh, di gunge askan wi yàlla na yàlla gin leen a jàppale ñoom ñëpp kon nag eh, damay sant ak gërëm rek di ñaax nit ñi daal ñu tegu ci aw yoon te muñ xam ne li ci kanam moo dàq incha allah rabbil alamin kon maa ngi lay gërëm day yàlla bu baax. gërëm murit te di ko ñaanal yàlla sans borom. gërëm Matar Sakho bu baax ci taxawaay bi. gërëm Babacar ci réalisation bi ak képp koo xam yaa ngi seetaan Leral TV ñu ngi jéggalu ci wax ji lii dëgg yàllaa ko xam yàlla ko yàlla ful li ñu wax ci lu dëgg yàlla ko yàlla jéggal waaye am nañu yéene mu doon dëgg parce que nag wax dalul mat parfois jazakallahu xeyran tontongaar yi kàddu yi am na solo yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ñu ngi lay jaajëfal aussi baax di am mbégte contentement partagé ak yow émission bi dimanche bu jot ak murit ñu ngi koy ñaanal yàlla wéral loxo bi parce que li muy def neex na loolu macha allah di gërëm aussi euh, tonton Matar mu ngi ci régie bi ak Babacar ñu jàpp nekkoon ci régie bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp may gërëm aussi sama yaay bi nekk Thiès sama maman mbay faal moom day teewlu émission bi ak euh, waa Fouta sama famille sama cousin yi heure émission bi commencé dañ may woo téléphone naan ma cousine euh, sa émission bi commencé na man ñoom sax ñoom ma koy fàttali ak sama sœur bi nekk Daaru Moussi Fatima madame Ndiaye ñu ngi ciy ñuy ñëpp di ziar ñëpp di amoon mbégte ak contentement partagé ak yéen euh, émission bi comme ni ñu ko faral defee dimanche bu jot bu ñetti waxtoo gën waxtu jotee ñu ngi leen di jaajëfal ñëpp leen jox dig daje beneen dimanche incha